acca jërë ngeen jëf uh, yéen sunu mbokk internet bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jëfal bu baax di ci dellowaat rek ku nekk sa wàccuwaay amaat lii di kontaante ak mbégte bu baax nag comme ni ma ko faral di def saa su nekk kilifa yi wala sëriñ boo xam ne dama laa dalal ci biir siit bi rek. saa su nekk damay bëgg ñuy waxtaan ci xam-xam ngir ñuy taatan di ñu topp jëre ci lii di njëriñ lu taw fiixe ba tax na ki may dalal tey xam naa namoon ngeen ko mu di Thierno Amadou Gange dinañ waxtaan ci ponk yu bëree bëri fasantikoo yaatal ci bu baax a baax waaye actualité xew-xew jamono dinañ ci yaatal bu baax aje laata may ñëw ci sama biir programme kilifa gi damay bàyyi nga nuyoo bokk askan wi bisimilah aouzu billahi min asheytaani rajim a rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillah laa hawla wala quwwata illa billahi al-azim maa leen di nuyu di ziyaare ñëpp képp ku ñu seetaan maa ngi lay ziyaare maa ngi di nuyu fu waay mën a nekk mi salmina bandiraabam Haalpulaar kal neɗɗo waawi won mi salminimaami juuri maama hada wasalaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf uh, Thierno Amadou Gange ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaane ginnaaw uh, sa nuyoo set yooyu tànn dal ñuy kontaan bu baax fas yéene waxtaan ci xam-xam yaatal ci paj ak ñaan bi nga xam ne yaa ngi ci def résultat bu màcc xam ne nag euh, ki may dalal tey ku xam suñu mbokki xalpulaar yi xam leen ci liñ naan nopp waaye xam leen ci fas ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni gars yi dañ koy soxla saa su nekk di ci ñaanlu euh, ba tax na loolu war na leen a tax euh, ngeen xam ne li ñu war a waxtaan ci ponk actualité tey li yi di xuumtaan di koy wax ci suuf ci diggante huit ak seize bi dina ci wax lu leer nañ lu du deñ kii doon président ndax dina bokk wala du bokk ñi di si bokk ñëpp dina leen seppi tey wax ko ñëpp déggandoo ko atia damaa bëgg ñu tàmbalee ci seet bu yéeme bi nga xam ne yaa ngi koy def ñu dil siwaat Euh, alhamdulilah Cheikh maa lay nuyu bu baax leen di ziare bu baax beneen yoon euh, comme li nga wax sànq wàllu ñaan dafa am base base bi nag lu njëkk mooy ndigal comme li yàlla waxoon yonteel Muhammad inna arsalnaaka shaahidan wa mubassiran wa naziran wa daayan ilallahi bi iznihi wa siraajan munira gannaaw bi nga amee ndigal nag mooy nga war a dem jàngi lan mooy nit nit nag du tur ak sant kese waaw dafa am lu lambo ci ginnaaw nit doomu aadama dafa am rawxaan dafa am xuddaam dafa am rabu raw xaanam mhm. noonu la amee bidiw loolu nag foog nga xam ilmu nujum nga xam nit kooku mooy kan te loolu soo ko bëggee bëggee jëflante ak doomu aadama boobu noonu soo yemee ci tur coow coow li day bari yoon bi gudd te li nga soxla doo ko am mooy waral nag nit ki di seet da seet nag bari na ay façon lool mooy pol am na yuñ ci yàlla jagleel mooy ramlu waaye am na tamit lu ñuy wax listixaar ak istixbaar mhm. am na seetu ndox am na seetu kurs am na tàllal loxo ma wax la loolu yëpp dafa am xam-xam yoo xam ne nag lu nekkul lu ñuy jàng si téere la da ngay ànd ak mag ñi njëkkee ay tegtal la yoo xam ne nit da doon dox ñu ne la kii jigéenu kër la nga yónni ko ndox mu indi ko toog mu dellu nu muy waaxoo nga xam ne kii boo ko takkee am nga jabar ñun tamit si loolu noonu dañ ciy sukkandiku ci yu bëri ñu jàng ko xam ko tey boo doon xool seetu ndox boo demoon ci alxuraan doo ko fa fekk. boo doon seet seet yu bëri doo ko fa fekk mhm. listixaar da nga ko fay fekk nag yonent moo ko digal mhm. waaye yu bëri tamit day fesal mbiru nit ki te fekkee bokkut foofu moo tax nag boo bëggee xam yu bëri il faut nga delluwaat ci cosaanu maam yi surtout maa ñun ay pulaar nga xam ne nit ngay yore yetam ak nagam ak benn xabal alquran mu wommat nag ñëw ba benn barab rek mu ne fii mooy dëkkuwaay bi mu samp moom ak nagam te day barke day jur day dëkk-dëkk te ko benn yoon waaye fu mu ko jëlee mooy tegtal la ak tamit seet nit ki nag pour nga mën a liggéeyal ak moom foog nga xam lan mooy jàngoroom foog nga xam lan moo ko dal foog nga xam lan la waaye nag du lépp la ñuy xam jàngoroom ku am hémorroïde loo koy seetee jaru ko jox ko garab hémorroïde ku am wàllu ndoxu siiti jarut seet jox ko ndoxu siiti ku indi métti xam nga loo koy feet jarut seet mais bu dee nit ki da ngaa bëgg xam lan moo wund ci biddiwam dëgg-dëgg ak wàllu wërsëgam wallu liggéey yu ko def wàllu ay biir yu métti xamul fu mu ko dalee ak yu bëri il faut nga yër mbiram nga xam lan mooy sabab bi ak nit ki soo bëggee jëflante ak moom ci wàllu ñaan ala kulli xaalin da nga koy seetaat seet nag boo ni la seetalee gisul la bee ba ko sant ñaan jaru ko waaye nit tamit bu fekkee ne seetal na gis na la boo ko santee ñaan tamit sant ko lu man waaye sëriñ tamit dafa war a am ngore boo xamante ni bu la nit waxee gisu ko tamit nga bañ a rëy wala boo mënul dara wax ko mënuma ko boo ko amee foo ko yebal nga orienté ko parce que nag fawqa kulli lépp loo xam am na lu la réere am na lu la féetoo ko loolu alxuraan la yàlla ko wax boo amee ñoo xam ne ñoo la féetee ko say nit man sëriñ laa damay ñaanal nit waaye am na ñu may ñaanal du ko wax ñekkut am na ay kilifa boo mënoon mbir mi yóbbu ko sey kilifa ñu dimbalante ak moom nit waroo rëy loolu mooy ñaan ñu ngi si sant yàlla bu baax loolu nag ñun amuñ problème boobu. Hmm. jërëjëf kooku mooy Thierno Amadou Gange nee naa leen du naqare jot ci ñi nga xam ne dañ koo soxla saa su nekk ci gox fasantikoo yi ci biir réew mi wala bitim réew soo jokkoo ak moom rek dina la seetal ba sa sedd guy atya damay ñëw ci li nga xam ne seen mënin la rawatina yow mi nga xam ne yaa ngi ciy def résultat yu màcc ayib mu di nopp bu yéeme bi nga xam ne yaa ngi koy def. waaye nopp dafa am dafa am parce que ku ak soxla bi nga indi. boo nee noob rek ñu bari dañuy foog ne diggante jëkkër ak jabar la wala ñaari nit ñuy labante la ñuy bëggante mbiri teg noonu noob yëmut foofu nit day day noob dëkk nit day noob dëkk nit day noob barab bu muy liggéeyee nit day même jur dañ koy noob soo demee su ñun pol yi bu ñu sàccoon sa jur tey boo rombee nga wax day dem ba kammeese kàddu boo rombee rek day yuuxu nga xam ne diw la lu tax parce que da koo noob ba ñu xam la boo gisee tey xaj boo geddee at nga topp rek mu topp la parce que dafa am loo xam ne dañ ko def loolu nag bari na même jur yi sax da ngay noob ni ngay noobee jur nag bu dee ko am jur la ñun ñu nekk ci pôle yi am ay jur da ngay gis ci lu bari ci lekk wala ci naan lañ koy def famille tamit boo ko amee sa njaboot nga bëgg ñu booloo doon benn man nga def loolu ci noom noob la noob say njaboot dara nekku ci naka noonu jëkkër bari nag ay façon yuñ koy noobee xam naa dinañ ci ñëw am na ci ay xànc gis nga lu ñuy wax gis boo ko ñëwee am na nag loo koy neexale nga dindi ko loolu loo gis parce que garab ni nit ki dundee soo soxlaa ci moom dara nga tagg ko diwe sa maam diwe sa maam diwe sa maam buy jël dërëm di la ko jox du ko tey kontaan na mais tamit yàlla si boppam boo koy ñaan danga koy bàkk ci turam yu sell yi yu rëy yi ba yàgg nga ñaan ko garab yi tamit lu nit di nooyee noonu lay nooyee lu nit di dundee noonu lay dundee lu nit di naanee noonu lay naanee kon boo soxlaa ci moom defal lu mu wax ak lu soxla nga bàkk ko jox la ko soo xañee gi gis bi nii dafa am gauche am droite bu nekk droit nii képp góor booy yeew ci droit boobu nga ko yeewee ci xànc boobu noonu bu dee jigéen bu nekk càmmoñ moom nga ko yeewee si xànc boobu nekkal ku la doon buñ la ci fasee dañ lay jàpp am na tamit xànc boo xam ne buy la xam naa dinañ ci ñëw wax ci yooyu mais incha allah yooyu yëpp ci côté noble ak ku mën a nekk am na façon noppal yoo xam ne dañ koy def mais tegtal la yooyu nag lu gën a bëri fuñ koy defee mooy koo xam ne ñu ngi si néegu sëy na sungu yuñ koy liggéeyee jamono bi ngay ànd ak sa jëkkër nga koy jël raxasee ko sa kanam si suuf nga ànd ak sa jëkkër si guddi boobu noonu kooku ko mënta def ci àdduna mënu la ba mënutu la woon ginnaaw ak ko mën a nekk loolu xeetu noob la am na boo xam ne si njàpp yow may yow miy soxla ñoom yow yaay jàpp ndoxu jàpp boobu moom ngay jël am na yuñ ñu lay jox nga boole ko ndoxu jàpp fexe ba mu naan ci ba ci naan am na yu ñu lay jox nga sang ko benn yoon. billaay wallaay tallaay ba àdduna du la wane mën a wan ginnaaw su dekkoon ci leneen yu dul jaaduwul sax dana ko bàyyi dikkaat ci yow. noob dafa yaatu incha allah. acca nee naa leen xam-xam mu wër kooku mooy Thierno Amadou Gange tey rek ngeen dégg fii lu am solo waaye lépp ci xam-xam lañ koy wér acca damay ñëw ci beneen ponk mu bokk ci néew kàttan ndingóora nga xam ne it sonal na nit ñi. waaw xam nga loolu tamit feebar la ndax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne na ngeen takkante seen biir da ngeen sàkku si ay njaboot ndax bés dana ñëw ci bés penc yi dinaa puuxarlewoo ak sama nawle yonent yi xeet kon yokk xel la mbokkut ci ponk sey pour am doom waaye day dëgëral sëy beneen bi tamit jigéen takkee woo ko pour indi ko sa kër pour lekk ak naan lekk ak naan dangaa fekkoon moo koy def kër yaayam wala kër baayam muy solu dafa am lu ko manqué moo tax nga indi ko sa kër nekkal koo doon sa tubéy su baaxut jigéen du la jox cër doo am kaddu si kër gi nekkal koo doon nag su su fu neexal ngay mujj si ngay dëkk di neexal ndaw si di moral parce que lu tax nga indi ko mënoo ci dara loolu nag am nañ ci yoo xam ne jagle bu ñu yàlla defal te yàgg naa ko di ko wax am naa ci ay sunguf yu ma ciy liggéey loolu moom boo ko utilisé si kàttanu yàlla da ngay am doole boo xam ne yàlla dañ lay suturaal am na ci ay xànc yoo xam ne garab la mais yu ma ciy gën a def man fas la fas boo xam ne suñ koy fas si buum yi fekk ngeen fi yi yëpp dañ koy liggéey soo xamee turu nit ki ak turu yaayam da ngay jat gannaaw bi nga sante yàlla bisimilah rahmaani rahiim salaal muhammad wa alaal muhammad bisimilah gor ko rahmaani gor ko kajar gor ko kamaa gor ko boo yegg ba jat bi yegg nga tufli def ko juróom-ñaari fas nit ki da koy takk si ndigg bi su tekkee ko daanu si suuf nag yàqu na mais leneen yàqul ko ànd ak sa soxna dem tuwaale loolu yëpp yàqu ko daanu si suuf moo ko yàq billaahi fekk mu ngi sa ndigg doo takkali ko ngóor dundal santan doo faale kenn jërëjëf jërëjëf ci xam-xam bi jërëjëf ci leeral yu am solo yooyu nga xam ne lépp nag ci xam-xam rek lañ ko wéeroon atia ñu dox ba léegi wéyal ah damaa sob de lu ma gis dinaa ko laajte am na bagage yu ma gis fii de atia euh, lii may gis nii jël ko nga wax ma lan la ak ci lan lay dox daa mel ni gis naa fi xàncu guy du ma juumut gis naa fi lu yor ay dëgg suñeel la yaakaar naa du juumut ak kàkkatar ak xaw ma mbott jëlal ñu waxtaan ci nga wax ma seen njëriñ ci lan lay dox. waaw alhamdulilah lu ne moom boo ñëwee dañ ko bët moom doo ko wax fii nga yem moom muy xool lu ko nekk waaw muy xool amaan na secret la te yonent Yàlla Muhammad defal na as-sirru iza ubsiha fasarron mboot boo ko fesalee du nekkati mboot loraal ngay doon loraange bi nag du gis day yàq yow sa mboot waaye keneen mën na ko jël bëgg ko utiliser lu fekkee du noonu mu am ci loraange moo taxoon soo ko gisuloon walla nga wax ci amaan na duñ ci wax waaye lépp loo gis yàlla sàq ko si suuf pour njëriñu nit ki la lépp nag comme niñ leen nit seetalee mën na leen génneel saraku nag wala gëléem wala xar walla ginaar wala dugub wala soow wala nangam ngir nit ki moo tax yàlla sàkk ko si jamono yent yàlla Muusa bu waa ji reyee nit ki ngir yongaan ko ngir jël alalam buñ vérifié xamuñ kan la buñ bëggee xam kan yonent yàlla Muusa da leen wax ne dem leen ngeen génnee saraku nag mu ngi si suuratul baqara bu gudd la ñu ciy léegi lan moo tax nit ki fis ñu xam kan la nag boobu la boo xoolee bàyyi wala Abdullahi maanaam bu ko bu ko buggee rey lan moo ko sobe gélem la ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen maanaam mala yi ngay gis fii yëpp yàlla def ko sàq ngir doomu aadama ku xamul nag mën na foog ne ci lu ñuy lekk rek ci la yem waaye tey man nit defal la téere mën la demal owee ko deru golo golo bi mooy faj wala téere bi mooy faj waaye ah, léegi lu ci lu ci dëru golo bi. moom dinaa xamut nag. golo bi tamit day faj. parce que yàlla def ko sax ngir joom bu doomu aadama bi la. du xaatim bi lay bindal ak. demal demal nga awee ko dëru gaynde demal nga owee ko dëru demal nga dëru dëru dëru dëru yooyu yëpp la dafay jouer ci li ngay liggéey. gis nga lii ngay gis nii mooy mbott. gis nga mbott bii. Hmm. nekkal ku la doon lépp luñ la mën a liggéey si àdduna ah. liggéey bi bu métti métti suñ la ci defalee liggéey buñ ciy liggéey ah. day ànd ak alxuraan saar boo xam ne dañ koy liggéey ñu def ko nguunu ngaana ku xamul nguunu ngaana mooy saar boo xam ne bu njëkk bi dañ koy bindi maas ko tomb ko comme nu mu wàccee mm. beneen bi dañ koy tomb sidda ko mais doo doo ko beneen bi doo ko tomb doo ko sidda doo ko maas loolu mooy nguunu ngaana mm-hmm. moom la ñuy booleeg mbott bi cangat bi benn yoon la koy sangu boo koy sangu lépp lu fekk ci yow ci liggéey bu bon mm. da koy dindi ku la tëkku tamit ànd ak xeex maa ngi gën ci yàlla tamit xamlat maa ngi gën ci yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam kélu képp koy xeexal nga utiliser sangat bi du mat ñaar fak fukki fan wala fukki fan ak benn nga gis ko bu di bàyyiwul day tëdd day defante bu baax waaye nag buñ ko jox koo xam ne rek naam lii ne déedéet bu dee loolu da ngay li waaye nag ku la attaqué wala tëkku la wala nga xam ne ñii si milieu bu ma nekk dafa bari ay xeex nekki politique bi nekki niki leneen ak leneen ak leneen jàngal bi soo ko amee dalalal sa xel ku la jóg pour liggéey la du ko fekkee accident yi bari nga koy gis ni ñu ne jinne la nit moo jéw moo jóg pour liggéey doomu aadama doomu aadama boo bi nga bëgg a liggéey nag da ngay moo la gën a pare njëkk na la pare yàgg yow doo yegg ndax sëriñ bi ngay jëm dafa man soo fa yeggee amaan na mu jàpp waa ji yow yaa dul yegg soo demee si signal bi bii day toj gàllaaj day tamit wàllu xeeg dafay jëm signal bi tamit noonu la day dem ci wàllu kaaraange signal bi boo gisee am na boo xam ne dama ci joxe secret sax ku gis signal bu dund boo ko jàppee jour alxames nga am inde bii inde bii nga teg ko ci nga jël ndox nga sotti ci kaw signal bi boo pare nga tegg nga jël ndox boobu nga sangoo ko maa ngi gën ci Muhammad lépp loo soob ci année boobu yàlla dana ko sottil te kenn mënul laa xeeg ba naka noonu tamit boo ko gisee nga teg si sa lo sa tànk si kaw nga ñaan sa soxla lépp loo ñaan yàlla da koy nangu signal bi dañ koy boole ak garab bu wax xadd xadd su la nekkee nga am suuf armée la ak suuf hôpital ak suuf boo xam ne fu ñuy tuuree mbalig la ñetti yëpp benn baaxu ci kuy jaabante hôpital ak këram amul lu ko gënal koo gis ci fu ñu tuuree mbalig muy for ay ay sagar ay nangam xel bi dem na. armeel ba ku ñu fa moom si yow si àdduna pare nga te ñett yëpp boo ko utiliser liggéey ko si bi képp ku la bàyyiwut noonu lay mujj bu ci gën a tuuti mooy dee ndax ku wér moom loolu dee ko gën feebar bu wérut dee ko gën kon lii mbarlu kaaraange la protection bi boo xoolee depuis 2018 sama waxtaan yu bëri moo ngi ci parce que dama koo fonk dama koy def dama koy defal ay nit kaaraange bu garaaw la su la neexee yéen sëriñ yi tamit signal bi am na benn secret bu ci nekk am na signal jour boo koy jàpp. nu nii nga fekk ñu débbal la ko mu doon sunguf am na benn cuuraay lawbe nag ñoo koy jaay nga boole ko ci boo xëyee nga koy def sa nit ñi dañ lay wut moo xam sëriñ la moo xam mbooloo nga bëgg moo xam politicien la ku mën a nekk nit ñi dañ lay dikkal loolu tamit dañ koy liggéey ci wàllu. ñu jàll ci kàkkataar bi lépp xam ne kàkkataar si lu mu bëgg a nekk mu soppeeku ko te boo jëloon billet 5000 nga nga dugal ko fii mu ngi dund kàkkataar bi day jël couleur boobu. boo jëloon billet billet beneen boo mën a jël boo ko jaxasee ak moom moom da koy da koy da koy jël couleur am day copier ci moom moo tax nga gis nit mu yëngatu ci benn mbir ba yàgg fekkee wërsëgam du foofu ñu gis fi benn nit boo xam ne mënoon na nekk joueur mu topp nekk jóg nekkaar woykat ñu gis koo xam ne commerçant la woon wala doon liggéey mu jóg bàyyi fa nekk mbër dafay bëri waaye kak tarab da lay orienté yow fan nga jëm te léegi boo ko am na càngat yu may ànd ak garab boo xam ne moom la ñu koy mooñaale buñ la nekkee ñu def ko saabu jox ko nit muy sangoo saabu bi saa yu sang wala nekkee ñu jox la sungu bi nga koy suuroo su la nekkee ñu jox la sungu bi koy sangoo mais càngar yi yëpp nekkul càngar yuy diire déedéet man sama yi def noonu soo ko defee nag dangay ngay gis yàlla da lay wërsëkal da lay wërsëkal alal day diggee ci yow te loolu dëgg yàlla du ànd ak biri wi par kàkkataat bariwul biri wi am na bayre yoo xam ne bayre bu ànd ak coono la te loolu misee ñoo ko soxla ak mbër yi ak politiciens yi am na ñoo xam ne soxlawuñ loolu na ànd ak dal te da ngay gis sa bopp ci li nga nekk ay ci place ay ci barab bu mu mën a nekk te boo koy def tamit kenn du la jege incha allah. gis naa fi lu mel ni xanc guy ndax loo leen ci mën a baaxe waaw xànc guy bi ak sagaru seen bi sagaru seen bi boo ñëwee si seen da koy for mais soo ko for sa tànk nga koy fore sa tànk bi nga jëlee ko si ginnaaw soo ko jëlee si ginnaaw. nit ku te ko mënta kuñ mënta jàpp mënul nekk boo ko fas sagaru seen bi dañ koy jàpp sagaru guy bi wax naa sànq nga gis mais mais xànc bi sànq sànq wax naa nga gis mais lii guy la guy nag ñëpp xam nañ lu muy liggéey pour nga te nit ku të guy gi lañ koy liggéey nit koo xam ne ñu ne kii may mënu ko jàpp kii lii kii laa boo ko liggéey si xànc guy bii bisimilah rahmaani rahim bëgguma ci jaar. <laughs> léegi nag yooyu boo ko ci liggéey si guy bi noob la moom it noob la boo xamante ni dafa jëm ci wàllu diggante yemul ci diggante jëkkër ak jabar parce que yooyu terrateer yooyu garaawul mm-hmm. mais ku yore société nit koo xam ne wala nit koo xam nekkal même président pour mu jege la mu jox la bopp ñu ko liggéey si xànc guy bi dinañ ko jàpp incha allah kon gars yi xam naa kontaan ngeen tey daal xam-xam euh, génn na ndax nee naa leen man bëgguma dalal ko amut xam-xam damay bëgg ñu ci waxtaan di ci yaatal ñuy taatal di ci jëlee njëriñ saa su nekk. atia euh, laata may dugg ci xew-xew jamono mu di actualité damay ñëw ci mbiram papier mu di këyit dafa sonal gars yi xam nga mooy boo boo ñëwee ci wàllu këyit da lay delloowaat ci wàllu seet bu njëkk bu ñu doon bu ñu waxoon nit boo ko seetalee mu ne la problème këyit laa am boo ko seetalee yenn seet yi wax dëgg yàlla war na la war nga xam yoon bu muy jaar fekkee ñaan bokku ci gis nga sarax amul lenn si ko suuf lu mënta faj waaw amul lenn lu mënta faj ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafay wax ne astainu qadaa'ida hawaa'ijikum bi sadaqati na ngeen dimbali ko seen soxlay si sarax kon lépp sarax la kayit am na yoo xam ne sarax bii lañ lay sant nga def ko ñu téyel la tur gannaaw bu ñu tamee yow sa tur bu nekk sa kayit ñu jàppal la liggéey mën na néew guud mën na yàgg mën na bañ a waaye yaakaar naa suñu liggéey ñëpp xamee nañ ñun ñaar fukki fan ak benn lépp lu ñu sumb ci àdduna yàlla nañ ci defal sutura waaye du ñun yàlla la wàllu kayit moom képp kuñ ci jëflanteel incha allah yàlla dina la sutura bu dee jigéen boo xam ne tamit dangaa dox ba sonn mënoo am jëkkër loolu tamit am na ci yuñ ci liggéey yu garaaw xam ni guro lay àndal lu tollook sa at képp kuñ ko defal balaa vingt et jours yàlla sutural na nga am jëkkër buñu ñu fay dërëm demal ba gis. nga jox ñu sa xaalis am na yuñ ciy liggéey tamit lu jëm ci wàllu fuddan boo ko fuddanee benn yoon balaa mooy jeex sa tànk bi nga gis ku la nuyu loolu yëpp ci wàllu xeetu ñaan la dañ ko si jëflante ak jigéen ñi incha allahu taala. kon jàpp leen ne du naqaree jot ndax numéro bi mu ngi doon di daw ci suufu barre d'écran bi soo ko contacté dina jëflanteeg yow ba soxol sedd guy jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yu am solo yooyu lépp ñu wéeroon ko ci xam-xam euh, ñaari xew-xew yi euh, doy na waar de le huit ak le loo ci gis lan lañ ci suñu borom woon comme que da ngay fàttu di dugg xalwa di def riyaada coowal président Ousmane Sonko lii ak mbaam may ñaak aji sar ëpp yéeme na doy na waar. xam naa daal leen xam naa ko ci yeneen coow li njëkkee woon mujj rek ci lay mujj xam naa daal yeneen coow yi njëkk yi nuñ mujjee woon bii tamit noonu lay mujj coow yu njëkk yi nuñ mujjee woon mooy ñëpp xam ne bari woon nañ biri ñëpp tiit. waaye xabaan mansuuran rek la mujjoon naq saay rek ndax ku ñuy jàmmarloo nekkul koo xam ne pour daaneel ko yomb na ndax boo koy daaneel réew nga ne daaneel muy Ousmane Sonko. maam du mbooloo sax mbooloo moo ci tuuti mbooloo bi ngeen di gis ah. déedéet boo xoolee nguur kum sonko at yàlla ba léegi man loolu la dara du nit kese déedéet du nit kese. déedéet bari na. bari na ñi xam dëgg ñu xam dëgg baatin baatin xam nañ lan moo nekk si ginnaaw Ousmane Sonko. ñi di xalaat ni le huit ak le seize bi dara du ko ci. koy protéger nit moo ci gën tuuti laa la wax. da koy protéger dara mën na ko ci fekk ndax ku muy jàmbarloo tamit nit ku am tur yàlla la. mën naa tëdd nelaw. Mame Mbaye Niang ku am tur yàlla la. ku muy jàmbarloo si projet le huit bii hmm. ku am tur yàlla la. ni mu bokk ci nguur gi rek. non non dafa am tur yàlla. taalibe la. taalibe la am na tur yàlla. su nekkutoon loolu demee du noonu du nii du nii. kon Ousmane Sonko du ci mucc. déet man nag si mucc waaye nag du métti dina yomb ci moom waaye xam nga man politique dafa nekk mbir boo xam ne dafa doy waar képp ku ciy wax rek yaa nga sal sa bopp pax takk sa body pour dugg ci parce que nu ñuy ñu ñuy ñu ñuy lem ñu ñuy xeexee noonu la ñuy jubawee ana Idrissa Seck ah fu mu mujj mburuk mburuk soomi fu mu mujj. fu mu mujj ber na te génne nañ ko dàq nañ ko génne ci nguur gi est ce que mënuñ gémuñ ne Sonko de moom ak suñu waa ji est ce que nekkul benn la coolee bari rek na nit ñi bàyyi xel loolu. xam naa daal ñu ngi ñaan képp loo xam ne ko moo gën ci réew mi su ñëwee nit nit ñi nekk si jàmm réew mi gën a neex gën naax gën a barke yàlla ko fi yàlla indi waaye ñun am nañ ci ay nit ñoo xam ne dëgg yàlla yàlla bool nañ ak ñun moo tax yu bari bëgguma ci mën a wax. bisimilah ñëwal loo doon laaj. gis nga président Ousmane Sonko fu mu bokk ci élection yi bay doon président euh, élection 2024. waaye dégg de moo koy may. Ah. waaw taxawaay dégg ak ñaan moo koy man du doole xeex du doole nangam déedéet. waaw loolu laa wax nag taxawaay dégg moo koy may. nit ñi moom buñ ci basé wu pour lu koy fal lu koy ful lu koy gën a bokk. déedéet nit nguur mënu mën déedéet. lu koy fal moom. déedéet nit Ousmane Sonko tuuti. ko Sonko gisoo keneen ku du nekk de vingt deux mille vingt quatre bi de moom pour ñu gis ku bees koo xam ne mën na di jëlee Macky Sall bu fekkee Macky Sall bokk na. est-ce que dana bokk tamit. Hmm. Hmm. en tout cas daal Macky Sall moom ak dëgg yàlla dañ koy ñaanal bu doon ñun mu dem si jàmm rek. waaw waaw moo gën. ok ñu ngi sant ñëpp. ñu ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di salmina bandiraabam Haalpulaar ñu ngi nuyu suñu mbokk Thierno Ibrahima Fale si gine Bissau ak Thierno Alpha Diallo si gine maa ngi leen nuyu ñëpp di nuyu Thierno Boubacar si Mali maa ngi leen di nuyu ziare bu baax di nuyu seen njaboot dégg yàlla ñu ne dañoo am ay suñuy nit ñuy jàppale ci côté bu ne comme ni ñu wali yàlla yi amee woon wali yàlla boo ko gis ñu koy coow fii ak ku mën a nekk nag amoon nga ay nit ñoo xam ne guddeeg bëccëg ñu ngi toog seen sajaat di la ñaanal yàlla. comme ni ko yonent yàlla amee woon ñeenti saaba yi war ko lu ñu nekk ci ñun tamit nag déggal am na ñoo xam ne te suñ demee ba ñu jaaxle si ñooñ la ñuy dellu client sax dañ koy am mu dem ba mbiram suñ mbir kooku jaaxal ñu ñu delloo ko foofu si cosaan bi noonu tamit da ngay gis nit ki mënuñ ci dara song ko bàyyi ak mu delloo ko lépp lu ma mënut man ma koy delloo foofu ma yaakaaree mën nañ ko ndax nit ki mënoo man lépp mënuñ faj lépp àtt nañ lépp yàlla rek lañ yaakaar nit lañ jaamu yàlla lañ waaye nag am nañ cër ci lu ñu nekk te xam nañ lu ñuy def wa ma tawfiq ina billah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu